Euh, la grande coalition wàllu Sénégal mi ngi naqarlu mais aussi mi ngi dénoncer vigoureusement le fait que le président Macky Sall ak coalition am ñu bëgg jaay doole pour maintenir li nga xam ne moom mooy parrainage ci élection yi nga xam ne mooy am Sénégal ñuy wax ne également dafa am benn fichier électoral bi Sénégal am fichier la boo xam ne setul processus électoral bi également ak calendrier bi ak révision yi ñu ci war a def des listes pour que kenn ku nekk mën a bindu loolu yëpp ay jafe-jafe la ci Sénégal ci acteurs politiques yi ak citoyens tout court ñoom ñëpp ñu ngi koy constater tous les jours rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee les primo inscrits ñi nga xam ne dañuy bindu pour la première fois yooyu di ay tolof-tolof yu bari yoo xam ne boo ko dajalee dañuy jàpp ne les conditions ne sont pas réunies pour que ñu mën a dem ci ay élections législatives yoo xam ne day ubbeeku si ñëpp day libre mais aussi day transparent ba kenn ku nekk xam ne lu set la jëm ci weeru juillet bi ñu ko jàpp ci 2022 loolu ci jafe-jafe yooyu nga xam ne nemmeeku dañ ko également bokk na ci li nga xam ne mooy menacer sunu stabilité sunu paix sociale ak sunu tranquillité le président Macky Sall ak benn Bokk Yaakaar ginnaaw bi nga xamee dañu décidé ne dañuy forcer pour def li nga xam ne mooy parrainage en 2019 CEDEAO bi nga xam ne opposition bi daf ko yóbbu woon bataaxal pour wax mu àtte loolu CEDEAO dafa bind wax ne Sénégal régime bi na dindi ca na mu gën a gaawe système parrainage ci wàllu élection ginnaaw si loolu aussi yamu ci mu wax leen ne ci juróom benn weer ñoom nañu bind pour wane euh, CEDEAO cour de justice CEDEAO bi nga xam ne Sénégal def ci bokk bokk ci signataires yi lan la def ci ndigal boobu nga xam ne jox nañ ko ko ngir ñu mën a def ci Sénégal ay élections yoo xam ne àndul ak parrainage ñu gis ne loolu malgré cela delloo si nañ ko di ko waxaat pour indi ko waat imposé waat ko la grande coalition wàllu Sénégal di ko dénoncé di ko euh, xarab ci di demander à ce que ñu dindi ko ci na mu gën a gaawee moo tax ñu xalaat ne sax affaire parrainage ñun jàpp ñu woon ne dina dellu soit ci jotaay bi bañ koy waxtaanee dafa mel ne kon sunu nguur réewum Sénégal dañu yàgg di dëggaate seen ay signature ak seen ay engagement yi nga xam ne dañ koy am ci bitim réew wala boog dañuy tànn li leen ci neex ak li leen ci arrangé yi ci des ñu dàq ko dama ciy joxe preuve rek wax na ko léegi li xew Mali nga xam ne décision wu CEDEAO moo tax ñu intervenir fa ca moo ne day sans délai lañ ko def xaaruñu taxawaaluñu élection locale yi ñu génn aussi jafe yi ci am nga xam ne buñ ko doon lim duñ fi jógee tax na ñu xam ne système bi ñuy demee élection aussi ba tey des na manque na de fiabilité rawatina le fichier électoral actuel bi nga xam ne ba tey am na ay jafe-jafe lu ñuy wax ay anomalie ay fraude ak ay manipulation yoo xam ne ñun euh, nemmeeku nañ ko ci mu doon loo xam ne mu nga woon ca fichier bu jiitu woon ñu jàpp ne aussi conformément ak disposition réglementaire yi nga xam ne ñoom ñoo am ci sunu réew waroon nañu taxaw ci corriger na mu gën a gaawe dysfonctionnement yi fa am irrégularité yi fa am rawatina tey bu ñu ko doon tudd mën nañ ci boolee euh, di dante yi nga xam ne dañ ko joxe ci jamono boo xam ne waruñu ko joxe di d'identité yoo xam ne dañ ko joxe ca amul donné électorale ak carte d'identité yoo xam ne biñ koy joxe sax seen borom teewul ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yi euh, ci fichier bi la nekk yoo xam ne tey boo ko bëggoon liir lire wala nga analyser en terme de citoyen en terme d'électeur da ngay am problème parce que euh, ñooñu mooy ñi nga xam ne dañu am ay données biométriques yoo xam ne c'est corrompu ñu nemmeeku aussi ay njuuj njaaj maanaam trucage ci processus électoral waaye du bii rek am na yu ko jiito woon ñu doon ko dénoncer mais mu mel ne li ñu waxtaane woon ak nguur gi nga xam ne jamono woote woon na fi waxtaan la ëpp ca la génnoon ak la ëpp ca experts yi nga xam ne ñoo doon saytu la ñu joxe woon ci ay recommandation lépp dañ leen lem ba mu jekk ñu dugal leen ci ay tiroir amul dara loo xam ni dañ ko ci appliqué moo tax suñu jafe-jafe yowoon ñu ko doon wax jafe-jafe yooyu defaat surface tey ci jamono bii ñuy wax ak yéen ñaareelu yoon également bi nga xamee ne euh, état du Sénégal ci jamono yi ñu génn rek ubbiwaat na li ñuy wax inscription sur les listes électorales Euh, durée bi ñu ko ubbi boo ci génnee période contentieuse bi dafa doon lu gàtt gàttaay boo xam ne bëri na ñoo xam ne pour ñu inscrire peut-être dañuy déplacé wu dañuy wuti kayit dañuy voyagé dañuy nangam-nangam amuñu temps pour bindu ci ba nga xamee ne képp kuy sénégalais ci am âge war a bindu nga mën a bindu ci condition yoo xam ne yi da lay mën a permettre nga user ci sa droit leneen li ci mën a am ci wàllu ba tey irrégularité yi ñuy wax ak fraude ak manipulation yi mën nañ ci joxe exemple Pikine bi nga xam ne Euh, dañoo gis ay fraude ay manipulation yoo xam ni documents yi wane nañ ko parce que dafa ànd ak ay preuve foofu ci Pikine Cheikh Dieng dina si dellu di euh, leneen ak yeneen yoo xam ne ci ay commune la ci biir Pikine yoo xam ne noté nañ ko fu mel ne commune bu Pikine Est mën nañ ko ci boole waaye rawatina ville Pikine bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne docteur Cheikh Dieng bi jiite woon coalition wàllu Sénégal moo ko gagné tey teg nañ ci loxo te ginnaaw ba ñu demee cour d'appel pour kalaame pour ñu leeral parce que suñu avocats yi ay preuves yu leer la ñu yor terewul ba tey mi ngi traîner ca booy xool ci Sénégal bu dee téeméer li ëpp juróom-ñeent fukk ak juróom vidé nañ leen ci cour d'appel yi donc ñuy demander à la cour d'appel de Dakar mu vidé ci nu mu gën a gaawee dossier boobu nga xam ne moo concerne ville de Pikine te bu koy vidé aussi qu'ils disent le euh, qu'elles disent le droit c'est-à-dire na àtte li yoon di xaar ci moom ak li peuple bi nga xam ne moo tax muy àtte di xaar ci moom mooy dëgg mu mel nekkoon am na itam yeneen yoo xam ne war nañ ko mën a waxtaane moo tax la grande coalition wallu Sénégal nekk contexte bi ñuy dund tey booy xool ci sous région bi booy xool ci àdduna bi bëri fu am jafe-jafe rawatina réew yu ñu seq jafe-jafe yoo xam ne chaque jour xëy na dañuy toog rek naan du fi agsi du fi agsi waaye itam la grande coalition wàllu Sénégal xalaat na ne jot na ci taxawaay yi ñuy am ak jikko yu ñuy am ak comportement yu ñuy am rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite réew mi ñu xoolaat ko ba bu ëllëgee ah, li ñu naan xëy na du fi agsi mu bañ fi agsi mais bu dul loolu ñun suñu xel tey na ci lu ne mën na am la grande coalition wàllu Sénégal également di wax ne jafe-jafe yi ci wàllu koom-koom ak yenn choix économique yi ak yenn doxalin yi tax na sénégalais yu bari léegi dañoo ndóol ca ndóol gi at mu ne dafay gën a yokk bu ngeen xoolee ci front sociale bi bëri na ñoo xam ne ñu ngi en lu di ay syndicat ñëpp la ñu la grande coalition wàllu Sénégal di soutenir pour ñu mettre leen dans de bonnes conditions de vie mais aussi de travail rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu njàng mi ñi nekk ci wàllu wér-gu-yaram muy la santé ak ñi nga xam ne récemment ñoo yëngatu muy wàllu napp gi yooyu yëpp nag di ay sujets yoo xam ne di ko waxtaane kenn ku nekk toog sa rox di sànnante xeer ca réew mi moom lépp di urgence mënul xaar ñu jàpp ne ki nga xam ne moom moo jiite réew mi di président Macky Sall moom moo war wax ak les coalitions yi nga xam ne ñoo demoon élection ak acteurs yi nga xam ne ñooy les acteurs politiques pour que ñu metre en place un cadre buy tax ñu mën a waxtaan waxtaane poñ yooyu yëpp waxtaane yeneen poñ yoo xam ne réew mi la yitteel pour que rapidement ñu mën a am ay solutions consensuelles yuy permettre Sénégal ci boppam gis ci boppam loolu nag dañ jàpp ne mooy yoon bi des ñu war ko emprunter pour jàmm mën a sax ci Sénégal loolu itam mooy yoon bi tax ñu préserver la paix sociale mooy tax itam doomu réew mi bu ne ci wàllu ba nga nekk nga sentir ne sa réew kat jël na yoon boo xam ne yoonu dëggal la yoonu kenn ku nekk jot àqam ak yelleefam la waaye itam lu jëm ci réew mi ubbi nañu ay yoon yu tax ñu mën ko waxtaane kenn ku nekk am ci xalaat